gaay di dem Europe ñi di dem ay Suisse ak ay ay ay allemand man dama teg réewum tubaab yépp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay iraq téré tan Tanzanie. xamale ko ci xabaay ñu doon wax légui muy attaque yi nga xam wa Hamas def nañ ko def nañ ko jëmele ko ci territoire bi rewum Israël jamono ji nga xam dal at mu yees mi ngi teru wa Hamas dal di nak bomba dal di nak dal tiire ay roquette yu bari bari Euh, mu dugmal euh, capital bu réew mi daal di Tel waxaguñ nag yenn conséquence la jur waaye daal ñoom daal xam naa ne seenu feet moom tey du neex ndax roquettes yu bari yi nga xam ne Hamas sànni nañ leen ko mel na kon malgré Israël yi leen di yàqal lépp ba léegi daal ñoom seen installation militaire ñu ngi koy maîtriser ndax li ñu sànni ci roquette tey jii moom bay na lool dégmal ko réewum Israël xabaar yi dañ koy tàmbalee tey ci lool waa Amérique def nañ ko waa Ansaarullah ba waral ki yor kàddu Ansaarullah porte parole bi génn wax ko fukk ki seen ay sol seen ay ci waa Ansaarullah la Amérique faat bu sukkandikoo ci porte parole bu groupe Ansaarullah nee na daal ñoom ñooñi nag ñu ngi leen faate jaare ko ci attaque yoo xam ne Amérique def ko def ci seen ñetti bateau seen ñetti bateau xam daal seen bateau yi de seen bateau yoo xam daal ñoom waa Ansaarullah la Amérique attaqué bombardé ko faat ca fukk ci ñoom Ansaarullah ñoo ko daal di xam ne yor seen kàddu terewul nag ca beneen ah, wàll ga ñoom daal nee ñu daañu wéy di xeex di jàppale waa Euh, euh, Palestine ci li leen waa Israël di def te Amérique bu fekkente ne daal loolu muy def moo tax mu jàpp na mën nañu atteindre euh, day nax boppam rek ci gàttal xiw ko noonu waaye nag noonu daal maanaam daal li bëgg du ko am ñun du tere daal la ñu bëgg dañ ko am daa ñëwee di jàppale waa Gaza te itam mer Rouge moom kenn du fi jaar loolu kon di firndeel na mbir mi kon daal lu nekk mën na cee loolu sax ci la ministre des affaires étrangères bu réewum Iran di waxe ne arrêté ay gaal yu réewum arrêté ay ay navire yu réewum Israël lool yi bu fekkee dafa am ñu ko bëgg a jàppe kon ñoom li ñu def nañ ko seetaat ndax kat ñoom ñu ngi ne pàtt ci waa Israël la ñuy def fële ca bande Gaza ba noppi bëgg wax ne lii waa si lii xaw si def menace la loolu daal xel nangu ko ci gàttal rek ba tey loolu bokk ci xabaar yu tiri Mouhalim Info am na nag benn kër saa xabaar gu wax ne ñoo ngi waajal ab attaque bu fekkente ne bokkut bi ñu def bu yees boo xam ne ñu koy bëgg attaqué ñi nga xam ne ñoo di uh, waa Housi yoona yi maanaam ay réew yu ànd àndandoo ngir bëgg leen attaqué British Times British Times yaakaar naa kuréel xabaar la gu nekk fële ca London di ka di capital bu réewum Angleterre moo wax ne am na ay sources yoo xam ne daal wax nañ ni Angleterre jamono ji mi ngi waajal ànd ak partenaires yi nga xam ne moom la ay partenaires ay attaques contre ñi nga xam ne ñoo di Housi yoona yi ngi waajal ay attaques. ak seen ay partenaire contre xaw yi nag li ko waral moo foofu daal moom seen ay bateau yooyu jaar fa jamono ji jàll jafe na ko kon di lu loolu xam ne daal euh, lu yees la ci guerre bi lu ci wax ci côté boobu itam bu ñu sukkandikoo ci kër sa xabaar gi di réseau ABC nee na bu sukkandikoo ci benn responsable américaine port avion port d' avion bi nga xam ne Amérique yóbbu woon nañ ko ca Moyen-Orient ci bi guerre bi doon taal ci diggante Israël ak Hamas port boobu yi ci fan yi ñu dëgmal Amérique dana ko retiré dana ko fa jëlee mën naa am li mu def waa si yoon yi tragal ñu fayu ci moom peut-être xëy na moo tax mu bëgg ko faa gaaw jëlee en tout cas nee ñu Amérique dana retiré port ab boobu yi nga xam ne moom la euh, yaakaar na mi ngi tudd Gerald Ford yaakaar noon la noonu la port bi tudd maanaam benn navire de guerre boo xam ne maanaam benn navire boo xam ne daf koy taalal ci géej gi rek ay avions di ci mën di jógee naaw di dem xeex di ñëwaat bu mel noonu nag daf ca yóbbuwoon benn ci euh, euh, ci Moyen-Orient ci bi guerre bi doo tàmbali. Koutia Xabaar googu nag nee na Amérique ba yàggut ba ma yàgg dana ko fa jëlee. léegi bu ñu jógee ci loolu ci Mouhalim Info nag dañuy wax ci tolluwaay fële ci Bande Gaza ak ñaawteef yi nga xam ne waa Hamas ña nga ko fa def jàpp leen tey ci ñaari warab yu bokkul Israël xam leen fa ay bakkan yoo xam ne faat nañ leen fa wala boog Al Jazeera xam nañ ci ñaari yu bokkul ci Bande Gaza ne Israël faat nañ fa ay bakkan ñu wax ne benn bombardement boo xam ne Israël amal nañ ko ci barab ba wax as saytuun faat nañ fa lu jege quarante personnes loolu nag ñu ko def daal ci benn. Euh, euh, euh, quartier boo xam ne quartier bu am ay nit yu la nekk ca réewum Palestine fa la ñu faate kon quarante personnes yooyu am na itam feneen foo xam itam waxaat nañu lu ko jege muy trente cinq personnes itam ne ñu Israël ñoo leen faat jaare ci seen ay bombardement ñu ñëw ci ñëw ci xabaar boobu yi loolu wax nañu itam defaat nañu ko muy waaw trente cinq martyrs trente cinq juróom fukk fa fanweer juróom fanweer ak juróom yoo xam ne itam ne ñu faatan na leen ca xaan Yunus ci jaare ko ci bombardement yu euh, euh, waa Israël nee ñu nag euh, tey tey jii la am man naa am muy lool daa bokk bee ma njëkk wax ndax bii ma mujjee wax moom yàgg na xam ca jamono suba la woon bii ma mujjee wax bi ma njëkk wax nag moom bi ko Algérie waxee yàggul mën naa am nag muy boobu wala mu nekk en tout cas waaye daal barab yi bokkuñu ndax ci asaytu lañ wax fi ñu xaan yunus xaan yunus kon bokkuñu kon ñaari ñaari téef lañ def rek yu bokkul guerre bi itam lu seer la ci waa Israël ci xaalis ndax kur see xabaar gu wax Euh, te Washington Washington Post Washington Post ko moo ko wax sax nee na guerre bi Israël def seen digganteeg waa Hamas lu mu leen di coûter ci xaalis bari na lool mi ngi leen di coûter dix-huit milliards de dollars par an loolu par jour dafay nekk deux cent vingt millions de dollars par jour dix-huit milliards de dollars lañ ciy ñàkk ci année bi loolu par jour dafay nekk deux cent vingt millions de euh, dollars yooyu Israël danañ ko dépassé ci seen. ak ya, Hamas di lo Kamnanak, nak lu lu lu lu lu lu lu doy waar la euh man na jur Israël tamit ay jëf jëf yu bare bari ci manque manquement te lo takk yor wàllum finance ci réew wax na kon dal lu cher la ki ñam rek ci gatal li nga mom la wa Israël def def def ci atum ren mi 2023 bi ñuy jéxal fé ca Palestine ci bakkan ñu fa faat ci diggante Cisjordanie ak ca Bande Gaza sa depuis la xewon ci ah, Nakba Nakba nag jàpp naa ne benn jàmmaar la woon atum 1948 depuis boobaak léegi daal am at ñu faate ci nii ci bakkan ci peuple bu réewum Palestine mosul am loolu kon di firndeel ne mbir mi euh, jéggi na dayoo foo xalaat ñaawteef yi Israël def ci bande Gaza rek ëpp na ko ki jamono jooju itam waa Israël am nañu retiré ci seen soldat foofu waaye daanu ki ñëw ginnaaw bu ñu leen waxee itam li nga xam ne moom la waa Hamas xamle tey jii ne def nañ ko seen digganteeg waa euh, Israël. waaye tam ca ci si Soudani tamit am na luñ fa xamle daanu ci ñëw léegi incha allah rabbi dafa am woote goo xam ne ba benn kuréel moo ko woote lu mel ne la Israël waxoon bëgg daal deux millions ci réewum Palestine population yi Palestine yi toll ci ñoom deux millions ñu nekk ci bande Gaza ñu déplacé leen yóbbu leen ci yeneen ñi réew léegi nag téye fa deux cent mille ca bande Gaza maanaam daal la ëpp ca askan wa ñi génn leen foofa yóbbu leen ci yeneen réew ko fan yee xam na beneen kuréel ko wax. loolu yi ñu wax nag moom la waa Hamas di leen tontu ni leen loolu moom daanaka mooy crime de guerre dëgg dëgg dëgg boo xam ne dafa ànd ak agression criminelle askanu askanu dëgg seen suuf nga bëgg leen faa jëlee loolu moom jàpp na daal mooy agression dëgg tey itam mu ñuy wax crime de guerre dëgg mooy loolu. loolu tey moo tax it Mahmoud Abbas itam Mahmoud Abbas mi jiite Palestine di président de l'autorité palestinienne nee na du ñu nangu benn yoon ñu ñuy forcer du ñuy génne ci ay suuf loolu nag mi ngi ko wax ci bi ñu doon bi ñu lancé seen mouvement bi di Fatah Fatah nga xam ne jamono ji nag moo nekk ca boppu réewum Palestine mooy ñi xam ne daal ñoom la adduna bi reconnaître rek reconnaître rek ci gàttal ñoom itam ñoom ñi nga xam ne ñoom la waa Israël reconnaître waaye nag yu bare bare nangu wunu ñu daal di koy ah, am loolu itam bokk ci ah, xabaar auditeurs yi Mouhalim info ñu seetlu itam ci guerre bi jamono ji Israël dañoo tàmbali di faral nag di annoncé ay chiffres yu bari ci seen ay soldats yu faatu loolu nag waral côté xabaar gii di Al Jazeera di ci laaj lan moo waral Israël fan yi daal Euh, daal di wax lu baree bare bari ci ay soldaaram yi faatu ci guerre bi di joxe ay chiffres te daawu ko def bu njëkk lan moo xew loolu daal waa AGSR ñu ngi ko wax loolu lu fës la lu ñuy annoncé far yi ay bakkan yu rot yu bari ci loo xam ne nag daawuñu ko def dañu annoncé léegi daal bari na lool léeg-léeg sax ñu annoncé loo xam ne demal daal seen euh, tële moo tax ñu bëgg koo daal dakkal léegi dañuy wax ci loolu waa Hamas xam la nañu ko du lu bari lool sax tey jii waaye daal bokk na ci lañu xam le benn avion avion boo xam ne avion de reconnaissance la boobu waa Israël ñoo nee ñu daa daane laat nañu beneen tey jii ña ngi ko daanelee ca Baytu ya benn avion de renseignement ñu daal di koy daaneel ñoom waa Hamas xam ne nañu ko brigade al Quds boo ko déggee mooy Saraya al Quds di jihad islamique ñoom nañu tey jii tiir nañu benn soldat Israël ca fa ñu wax at tufaax wax ñu nag faatu naam faatu waaye daal fekkee tiir nañ koom njort yi mooy boo xefee faatu na ba tey loolu bokk ci xabaar yi auditeurs yi Mouhalim info ca si am na ñaari doomi réew Israël Israël yoo xam dañu leen fa da attaqué attaqué ñu daal di nag am ay gaañu gaañu te si soo doon occupé am na ñaari israéliens yoo xam ne am nañ ay gaañu gaañu ginnaaw bi leen attaqué ak paaka dañ leen daal di euh, attaqué daal jam leen ay paaka foofee loolu nag lu mën dafa faral di am duul si soo doon di damaa juum Jérusalem ak est laa bëgg a wax Jérusalem ak est la mbir mi xewee duul si soo doon yi foofu moom euh, yi mel ni li mu xew naa bari te foofu xam nga jamono ji mooy capital bu réewum Israël Israël ginnaaw ba jëlee léegi Tel Aviv moom capital économique bi a waaye ak capital euh, fédéral wala capital ñëw wàllum gouvernement bi yooyu moom léegi ñoo ngi ko yóbbu ca Jérusalem Est fa la Amérique sax ambassade am foofee nañ dafa am ñaari waaye ñu fa attaqué ñaari israélien ba gaañ leen ak paaka ñu def loolu nag mujj nañ leen neutraliser maanaam daal faat nañu leen wala ki ko def mujj nañ koo daal di faat loolu bokk ci xabaar yi léegi nak buñu ñu ci lool dañu wax ci lool armée israël xamé na ko tey ji ne am na ci juroom ki seen ay brigade yo xamné ñi ngi won ci guerre fi ci Bandagasa daan nañ leen retiré juróomi brigade yu nekkoon ca euh, Bandagasa doon fa xex daan nañ leen di retiré daan leen di démobiliser yoy nak wax nañ ñoy ñan nee ñoñu kenn ñan ñi moy 50 500 cent cinquante brigade ak tam 14e brigade de réserve ak yenen brigade d'entraînement bo boo boole ko muy ñet maam ñett brigade d'entraînement soko bolé ko boolee muy juróom. juróom laa bëgg wax juróomi brigade yoo xam ne ci wàllum xeex la ñuy yëngu feeca bokk ci armée israélienne daal leen leen retiré jële nañu leen foofee ca bande de Gaza loolu itam bokk ci xabaar yi auditeurs yu Mouhalim info kon de jàpp naa xanaa loolu moo ci gën a fës xanaa jeexale ci lool résistance islamique ba nekk fële ci Irak ñu ngi koy wëy ji def ñoom nag ciblé waat nañu tey jii bi yoon nag ñi ngi daal di euh, ciblé waa Israël ki seen ay euh, euh, maanaam daal lu fa seeni seen suuf rek ak ab benn drone lañ leen daal di sànni ñi nga xam ne itam ñoo di waa Hezbollah itam tey jii def nañ lu mel am nañ ay tiir yu ñu def yu bàyyi ko ci seen fa ñu nekk dëgmal territoire bu réewum Israël kon lu tiri Mouhalim FM ngoog loolu mooy li gën a fës ci xabaar yi ñu am tey jii ñeent diggante Israël ak Hamas di leen jox dig daje ba suba ak jàmm jërë ngeen jox salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. ñii di dem ay Suisse ak ay ay ay Allemagne man dama teg réewum tubaab yëpp di dem ay Afghanistan ay Israël ay ay ay ay ay Iran Irak